Sénégal gi yëpp ñaax na leen du dëgg ñun nag muy suñu devoir mooy topp seen gannaaw parce que man depuis 2002 86 laa wax ba léegi maa ngi ak ñoom 2002 j'étais au Japon avec eux ñoom ñu nekk na woon foofu lépp luñ subir subir naa ko fa kon ma fas yéene ko subiraat ak ñoom yàlla def ci jàmm ak xéewal président ñaax nañu nañu woote jàmm nañu woote salaam ci ci ci Sénégal nañu toppatoo xale yi ah, équipe bi damay wax toujours catholique yi moomuñu ko jullit yi moomuñu ci murit yi moomuñu ko xaadir moomu ko nañu boole suñu xol ñu ànd ñu nekk benn ñu bokk ndey bokk baay man Thiam j'ai 67 ans mais bàyyeeguma je suis avec l'équipe nationale du Sénégal à vie et à mort incha allah yàlla yàlla def jàmm je remercie la presse aussi suñu yéen du ñu gis kenn du ñu gis kenn du ñu dégg laaw la cat subhaana ma lamin